sëriñ Tuubaa Cheikh Modou taxa joxoon na ko waa Espagne ñépp ak mboolem jullit ñi nga xam ne bëggoon nañ cee barkeelu yàlla dogal na ngi doon ci dox ay jéego ba nga xamante ne si li ci ëppoon ñëw na muy wàllu mukket yi nga xam ne moom la ñuy ci jumaa ji yàlla dogal na démb ñaari conteneur yi agsi na ba ma ngi nii ñu wàccee ci biir jumaa ji waaye dafa am benn bu des li tax ñuy leeral lii tamit liñ ko seqoon ak suñu mbokki jullit te waxtu nañuy bàyyi xel liggéey bi mi di leen xamal rek ni leen fiñ ci toll rek lañ leen di leeral mooy am na ñaari conteneur yu ñëw ma ngi ñëw stock bi fii ci jumaa ji di xaar benn bi bu yàlla dogalee booba dikk ak jàmm it bala ñu ko jébbal sëriñ bi des na ko jàllale ba jullit ñëpp dégg ko rawatina mbokk yi nga xam ne ñoo nekk Espagne ñëpp bàyyi ko xel loolu rek moom la ne woon na leen ko leeral ci kanamu mbooloo mi fi teew sëñ maam Thierno ngi ñi jóge Daaru Musti ñëw teew sëñ Abdoulaat Boussa moom itam teewal bi sëñ Afia ak mbooleem jëwriñ yi nga xam ne ñoo nekk Espagne ñoom itam ñoom ñëpp ñu ngi nii teew kon foofu leen tollagun ngir li nga xam ne waxtu wu ne ñoo ñuy woo di ñu laaj fu liggéey bi toll te ay nit buñ bokkee ab liggéey di ci dox waxtu wu ne danoo war leeral fi ñu toll loolu rek mooy jubluwaay bi ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp xam naa ko ñu jox bàyyi El Hadj Abdou mooy mu sànni ci ay kàddu asalaamaaleykum wa rahmatullah wa rahmatullahi taala wa barakatu bokki Touba Espagne ñi ngi leen dellu leen siyaar baax deen nuyu ci suufu Touba si ñu nekk ci ndigalul sunu sang baax ba sëñ Mountakha Mbacké yal na yàlla yàggal ko fi tànd wér ci ndigal li nga xam na ni moom la ñu santoon yàlla dogal bagage yi ñëw ñaari conteneur ñëw na ba wàcce nañ ko mu ñu toll ci jumaa ji xanaa dellu santati bokki Espagne yëpp nag gannaaw yàlla yontu bi di sant bu baax ci taxawaay bu rafet bi nga xam ne moom lañ taxawoon ba yàlla dogal mu ak si fi ak jàmm waaye di santati nag sunu mbokk yi ku mel ne sëñ Bakki Ndiaye sëñ Jiri Diop ñoom Alaja di Touré ñoom sëñ Dame Xariloo ñoom sëñ Mor Tambédou ak ñeneen ñu mel na ñoom ñoo xam ne ñu ngi ci liggéey bi rawatina secrétaire bi son nañ ci lool ñu ngi sant fépp faa ma nekk ci Espagne di ñaan yàlla yont bi ba yàlla dogal ba ba continuer ñu doog a ànd ak njaboot gi yëpp dem jébbal ko sëñ Mountakha mu ñëw xool liggéey fa tubaarkàlla foofu lañ toll moo tax ñu leen koy leeral nii di siyaare njaboot gi yëpp ñu ngi fi ànd ak sëñ Abdou Cissé Sam sëñ Jiri Diop ak mbokk Espagne yëpp ñu ngi siyaare ba ànd ak sëñ Abdou Thierno mi fa tubaarkàlla di sant bu baax yal na yàlla doole jàmm waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatu sëñ bi alhamdulilah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu bokk jullit yi bokk teel bi noo ngi leen di siyaare di leen sant di leen gërëm ci turu waa daayira Espagne bi nga xam ne am nañ tawféexi sëñ bi doon leen liggéeyloo ci ay tepp yu jëm si ci biir jumaa ji indi nañ ko ñaari conteneur bu def benn. te loolu lépp di tawféex joo xam si Sénégal gépp ko waroon def murit yëpp ko waroon def jullit yëpp ko waroon def waaye ñoom la suñu borom tawféexale nag ñu maanaam am ci mbir moomu. léegi nag loolu képp koo xam am nga tawféexi liggéeyal sëñ Touba war nga xam ne da nga am tawféexi sëñ Touba fay la ndax sëñ Touba moom ñemewul bor dafa am pay li jàll itam li wóor sëñ Touba dafa daana wax ne ñemewu bor dama am fay ndax am na bis mu toggal mag ñi ab laax ba laax bi ak lu ci tëli bi bëgg a def mooy la bàyyil bañ noppee mu cëpp ca baaraam ba jox leen ko ne leen suñu borom moom a wax ne ma mbirum àddina ak àllaaxira lépp ngi ci liggéeyal sama jëm ji ma doon liggéeyal saa bopp. kon nag képp ku bokk ci liggéey bi war ngaa am xel mu dal ak xel mu rafet te yiw yi ci amitam ñu yéene ko murit yëpp ak jullit yëpp di ñaan suñu borom defal leen wér ak yor ak yokku xosug murit yàlla nañ ko am wér bu mën a liggéey am itam ba mën a joxe te nangu barke borom ay noo ngi ñaanal ñëpp di sant ñëpp képp ku fi teew yàlla na sa borom faj sa aajo ak ku fi teewul ak ku ci sa xel dem ak ku dugg jumaa ak ku génn ak ku mas a dégg dëkk Tuuba noo ngi ñaanal ñëpp pajug aajo tey ëllëg bari ngeen jëf barke suñu dërër sëñ rek mu tënk ñu ñaan ko defee ñoo xam ne ba Abdou Samb mu ngi fi teew ak Baye Djili Diop sëñ Fallou sañ sëñ Moussa Faye ñoom ñëpp tamit ñu ñëw teew ci liggéey bi sëñ Xaadim Mbeng kon dañuy jox sëriñ bi rek mu tënk lii nag du jébbule liggéey bi dañ leen doon leeral fiñ ci toll rek dañuy bañ kooku dégg dafay dañoo jébbale déedéet jébbalegul ko dañoo leeral fi liggéey bi toll heure bu conteneur bi des ñëwee ban war koo jébbal des na ko yaatal ba ñëpp dégg ko incha allahu rabbi jërë ngeen jëf wajjal kalaami rasidan wa mursida wa fikrati nawir wa xalbi arsida mbokk yi ñoo ngi leen di siyaar bu baax a baax di siyaar sëñ Abdul Ahad mi nga xam ne moom la ñu jataayoo fii te mu nekk seere ci liggéey bi ca teewal fi Serigne Afia ñoo ngi koy siyaare bu baax a baax euh, di teg siyaar bi ci sëriñ Mbacke mu jàllale ko ci mbokki dango yëpp ñoo ngi siyaare képp koo xam ne mi ngi Espagne ca di wax ne nanu sant yàlla bu baax a baax ndax sant yàlla gi weesuwut lu dul sëriñ bi amoon nag bëgg jëmee ko ci ñun ci bëgg boobee yàlla suñu borom dogal na ko ci jamono yi mu ko dogalit muy jamonoy xat-xat kon a xam na ne jamono yi liggéey bi amee day mel na dañ naan bu bu dudd woon janeeni jamono ci lañ koy gën a jàkku waaye jamonoy xat-xat yi tax na sax liggéey bi gën a gën a mel ne lu gën a jàppandi loola nag mooy lépp lu sëñtuwaa bëgg rek day daal am te it sëriñ bi moom képp ko amul tawféex doo ko liggéeyal ñu ngi ñaan bu baax a baax daal sëñtuwaa def ci dong yëpp seenum seenum xel di liggéeyal sëñ Tuubaa loolu yal na ko suñu borom def di am mbégte mu yaatu yaatu yaatu ndax ni nu ko waxee woon rek mooy liggéeyu sëriñ bi moom saa ko bëggee mu am. saa yu ko bëggee mu am lii jubluwun ci lenn lu dul fu waay nekk xam ne liggéey bi sëriñ bi di doon joxoon donga yi liggéey bi mat na sëkk loola rek lañ ci jublu waaye bu ñu demee ba ca sëriñ Muntaxa euh, ba ba jébbali liggéey bi ba mu bég ci donga yi bu boobaa tawféex jin bëgg bépp danañ ko mën a am ñu ngi sant di gërëm baax a baax jërë ngeen jëf. waaleykum wa barakaatu. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu ci turu daayiraat Muxaddamatul Xidma di wax ne rek euh, kàddu gi genn la woon bu ko sëñ Bakke waxee mel na ne waxaale na ñëpp bu sëñ maam Thierno waxee wax na ne waxaale na ñëpp kon niñ ko gisee mooy liggéey bi tapis yi nga xam ne moom la sëriñ bi santoon waa Espagne léegi nga xam ne mooy lañ ca waxantoon mooy lañ ca toppatoo andi nañ ci lu toll ci ñaari conteneur mu des benn conteneur ni ko sëriñ Bakke waxee léegi rek su lépp accès bañ war koo jébbale. danañu ko jébbale sëriñ bi boobaa ku ko war a yëg da ko yëg ku ko war a teewe itam da nga ko teewee su boobaa itam kàddu yi ñu cay wax sëriñ bi moo koy wax ba comme ci jox ndigalam mu wax ko kon nag ñi ngi sant bu baax di gërëm bu baax di ñaan lépp sotti ci jàmm li desit ñëw ci jàmm ñu ñu ñu ñu ñu ñu lal ko te yàlla baaxee ñu taw féexale ñu mu mel nañ ko bëggee woon ci barkeb sëriñ Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu